mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi fii ci dixième édition REIT fii ci promenade des Thiessois euh, euh, regroupement des éleveurs intensifs de Thiès tey ma taxaw ak waa euh, Nouvelle Vision champion maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Cissé Dia. tur bi Samba Lo. Samba bergerie Nouvelle Vision ngeen def tey ñaari box euh, tey euh, kañ ngeen taxawal seen seen bergerie. waaw bergerie nag bi ko taxawalee yàgg na mais fusion bi moom ah, yàggul. ndax bergerie bi ñaari bergerie la woon muy Papi Demba Gueye ak Samba Lo. Papi Demba Gueye yor bergerie 3S ma yor bergerie Teranga élevage. ñu dem ba ci biir xam ne élevage bi mbooloo mooy doole ñu boole suñuy bergerie. kon ni Pape Gueye xaale Olam defoon rek. ngeen def noonu macha allah. te ñoom ñooy suñuy gànnaar ci. mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole yaa macha allah loolu kontaan trop. Euh, tey ngeen def euh, union boobu ah allah naka ngeen ko defee naka ngeen euh, liggéeyee loolu. non avant ñuy def fusion bi sax parce que man ak moom ñoo doon ñoo doon chaque jour. parce que ñoo doon fu ñuy garan place ñoo bokk fu ñuy waxtaane. ay samay xar daan nekk si këram ah. ay xaram ne sama kër maal yi doon liggéey ñoo bokk ay maal yu doon liggéey bi ba ci biir nag ñu xam ni lii benn la bu ma soxlaa xar këram damay dem jël duma ko jënd bu soxlaa xar sama kër du ko jënd day ñëw jël dem ñu xam ne élevage bi ñu boole ko moo moo ëpp importance te si la liggéey bi gën a gaaw ñu boole ko ngeen boole ko macha allah léegi mën nga ma revenir rek tuuti ci yéen ñaar ñëpp ci yéen sangeen jotoo laal avant ngeen indi exposition bi waaw moom mu ngi doon liggéey ci roi Basir bi ndax mi ngi yoroon benn doomu roi Basir bu tudd prince Basir man ma doon liggéey ci benn maal bu tuddoon di sët ci préfet ndax euh, Paris moo ko juróon ta pari doomu préfet la man moom laa doon liggéey moom mu doon liggéey ci san euh, roi Basir bi macha allah ngeen liggéey ci ba ak fii tey nga ñëw euh, def ngeen def ngeen deux box Euh, lan ngeen indi tey fee ginnaaw fa mâle fii ma gi fi femelle ak production pour ay añal tey dañoo day tey dañoo def benn sélection bu yem rek ndax ah. li li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin bi mhm. moo tax ñu def deux box mais bëggoon nañoo jël sax lopp deux box ñu indi Erdogan rek ak ay doom def ah. box bi moom ak ay quelques jabaram ñu def box bi moom ay doomam ah d' accord ay euh, kay euh, euh, kan moo fi nekk femelle bi nga téye ak añel yi ñan ay doomi Erdogan ndax femelle bi ma téye mooy taawu Erdogan mooy joor ah, ah, kon moo fi nekk fii production Erdogan moo fi nekk ah macha allah ah, Erdogan na géniteur la de waaw géniteur la moom tam li ko doon dayee mi koy def ndax yokk na suñu suñu bu baax a baax moom ñaata moo femelle bi mi ngi ci mi ngi ci 15 mois Erdogan Erdogan mi ngi ci 29 mois 29 mois waaw ok gis fii ay gis ma fi jeune mâle dafay am am na jeune mâle benn doom dañ waroon nañ ko indi sax mais dañuy ragal indi ko ah, gars yi song ñu ñu wàcc ñu wàcc ko ba ok eh, eh, eh, kii entre doomam yi doom yu dañ doon ragal dañ doon ragal nag indi ko gars yi song ñu te relève la quoi relève la kooku mi ngi doog am 5 mois mu tudd nan kooku moo tudd satan 2 yéen ngeen mën a làq nag de yéen Erdogan mi da ngeen ko làqoon tey doomam bi taawam bi mooy kan kii mooy joor mhm. mooy taawu Erdogan mi ngi ci 15 mois moom macha allah moom am na fi doom fii. non amagul mi ngi doog a def porte. mi ngi doog a def porte ku ko teg moom maa ngi ci baraka. baraka bi nekk Kayor berger di Kayor. ah d'accord baraka doom allah baraka doomu batoñee fa ah, yëpp nekk fi ay doomu Erdogan lañ. waaw moom ay doomu seen i yaay nag yenn gaa gars yi gis nañ liñ produire ñu njëkkante ko jël ko yeneen nag ñi ngi kër ga ñu bàyyi yónni yónni seen i doom. Erdogan kan kan la àndal. Erdogan mi ngi ànd ak boxam mi ngi fa ànd ak bel ak joor ak sibilim. kuy dal loolu turul mooy cuulul bi mooy jo euh, bi mooy euh, mooy Nogoy. Nogoy waaw ok mi ngi ci deuxième portée moom la nekk nii pour l'instant waaw. ok euh, moom ban la. moom doomu doomu doomu Vaar la. doomu Vaar la moom mi moom waa waa Kayor ñooñu ci mayoon tëb. ci Vaar waaw. macha allah bay teg bu ñuul boobu. borom bi mooy Bel. moom doomu Prince Basir la mooy Prince Basir ma la ko moom la papi Demba doon liggéeyee. moo jur Bel moom waaw keneen kenn doomu Vaar la mi ngi jógee bergerie di Kayor ndax box bee ñu fa ex li ñu fa exposé yëpp Kayor la jógee ndax boo xoolee ba ci base bi sax ñu ngi ciy def merci bergerie di Kayor ah, ndax presque produit bu fa nekk yëpp Kayor la jógee ah, kon Kayor nag ñoom ñi ngi yaatal élevage Thiès mooy ñi ngi yaatal élevage Thiès te ñun ñu la ñuy jiñ Kayor sax ñun ah, waaw macha allah ak tam siblim siblim mi ngi mais du mooy doomu Vaar la mi ngi ci box boobu ci biir mooy moom kon euh, Erdogan léegi euh, à ñaata nga wax Erdogan mi ngi ci 29 mois waaw euh, man maa ngi ko doon xaar ci concours ko waaw préparé woon nañ ko pour indi ko ci concours mais yaa ma gën a xam rek. dañuy dem ba ci biir daal di xool rek mooy loolu. waaw ngeen bàyyi mu waaw ndax xam na ni ñëw nañ gis nañ maali fi nekk. ñi doon xaar pour ñu ñëw dugg ñoom ñëwuñu. te ñoom la ñuy xaar ku fa ku faar yi ñuy dem ñu fekk leen fa. ah ok waaye macha allah yàlla baax na liggéey bi rafet na ah. surtout fusion boobu ngeen def c'est très euh, intéressant parce que loo gis naa ah, lu benn mën rek ñaar ko dàq. te loolu day am solo quoi. waaw élevage moo toll foofu sax ndax élevage mu toll xar yi prix yi jar. Euh, ñaar boole ko jënd moo gën a yomb ko kenn di ko jënd. waaw or que bu ko kenn ki mën na koo jënd sax bu ko ñaar ñee jënd doo ko yëg mais bu ko kenn doon jënd mën naa metti ci moom mais bu ñaari doon jëndandoo doo ko yëg non dëgg sax ba pare day tax euh, liggéey bi gën a yaatu parce que ñaar bu nu bokkee benn maal exemple nga am ay day mën a tëb femelle yëpp waaw mi ngi nag loolu la def mooy Erdogan bi mu dikkee parce que tour bi def dafay yaatu ndax base de femelle bi mu fekk yaatu mu ñëw def tour boo xam ne juróol ñu ay doom yoo xam ne wax dëgg yàlla élevage am na ci yaakaar te ñaan gars ñu xaar ay doomam bu baax a baax te incha allah Euh, noo gisee raid bi dixième édition bi. non dixième édition bi moom lépp rice. Mhm. lépp nice ndax raid moom ñi ko jiite. Mhm. wax ci ñoom dafa dafa dafa dafa yomb ndax ay ay ay gone ko jiite ba pare ay liggéey ay ay liggéeykat lañ. Mhm. te li ñuy def bëgg nañ ko te xam nañ ko bu baax a baax ànd ceeb organisation bu mat sëkk. te ñoom ñoo ñu gën a bëgg raid bi. xam nga nit ki bu la jiitee ci benn bi ba pare gën la koo bëgg. pour mu def ci lu kawee sa njott rek day yomb. te ñoom fi lañ tollook ñun. macha allah kontaan naa euh, ñu ngi nuyu Papi Demba. sama sama jarbaat boobu nekk sama sama frère bi moom bi bi foire bi commencé rek connexion yi am problème rek la. la ja la dofoon quoi. fi mu toll dafa dofoon fi mu toll nekkatul. non xam nga tey euh, foire yi nekk foire de clôture. ñëpp di ko xaar. ñu gaa bëgg a tëj connexion bi loolu loolu benn affaire la. non dafa dof ci saa bi bi ñu bi. da ngay toog ba mu ndax ma nekkee fii ba mën a connecté wu ndax am na temps yoo xam ne ci wiif bi rek nga mën a connecté wu il fallait que ma dem ba kër ga defal ko rendre compte ah da ngay ñëw fekk mu rangaleel la 35 messages ngeen may mujj ne ko saa yi man gudd na damay tëdd mënu maa lire lii je me rappelle euh, foire bee pass dafa fekk ko fi woon maa ngi ko loo gis dafa naa mu ngi doon def ay appel vidéo de moom yooyu lay def nag mi ngi noonu sonal ñëpp nag mi ngi kenn jàmm du may kenn parce que communication boobam la gëm dafa gëm communication mi ngi noonu maa ngi koy nuyu au passage nag waaw adresse bi euh, angle Serigne Fallou la ci wetu xabru Ablaye Yakhine bi rek numéro téléphone yi mooy 78 182 09 49 boo ñu soxlaa rek boo ñu woowee foofu rek di ñu jot incha allahu rabbi kontaan naa waaw la gën a kontaan Cissé